أهلا بكم ونرحب بكم في هذا الحديث حديث الصباح الذي نتناول فيه جانبا مهما من حياة الرسول وأعماله صلى الله عليه وسلم ونشكركم على حسن الاستماع وعلى, وعلى تتبع برامجنا الإذاعية في إذاعة الفجر وأهلا بكم في هذه الحلقة في هذا الصباح لكن يدلو تدلو رجو الفجر أفن قدر كتر جيجيزنا بغاني بانا باكو في تندكارو كيسا نعم، دي نواني لندي نم بلندي تتغل من أبو سازا سنجوني كماشن بي نواني نعم، تتغل بلنا ياتنا ci suñu waxtaan wi ñu tuddee waxtaanu suba nga xam ne suba gu nekk Walfadjri dina leen ko defal ñaaje ci lislaam ak xew-xewi jamono yi waaye mu aji ci ay thèmes yoo xam ne yaakaar nañ ab jullit bu ko dégloo mën cee jëriñ balaa boobu la ngeen di ñaanal jàmm di sàkku ci yéen fu ngeen toll ngeen di ñaanal jàmm di ñaanal ñi xëy yëpp yàlla barkeel seen i yëngu ñaamalam xëy yàlla may leen ko ñu ci géej gaag ñu ci dex gaag ñu ci saxaar gaag ñu ci wata yaag ya ak ñi ca tool ya ak ñi amagul jiwu te dëgg ko ñi xaarab te ci tawul ak ñi saraasu di xaar yàlla අපි ඥාන ලෝතු කියන විඥානතිය ලෝතු ලෙසින් ජීවත් ලෝතු ඥාන කුන් ඥාන යන්නමයි nawet boo xam ne bu bari ndox la wante bu barkel la bu néewit ay dégâts la xam nga yàlla nit moo attanu dara yàlla su tawul nit jàmbat naan sécheresse beeg tàngaay beeg ba wàññi bu tawee nit jàmbat naan ndox mi bari na néeg yi euh, say nañ sang yi xaddeeku na rayaale na nit def na nangam ak ci nangam yóbbu na nangam waaye gis nga nit ki wala euh, fi daanañ leen ne doxal nawet mu yàq dana defar lu ko ëpp loolu nag mooy kenn ngoo liggéey waaye xolli jiw yi itam dem ca taax ya loolu xolli aw jiwu jaay kemb ga dem ci taax yi di taxawaaloo ut fa kii ak bokk sa kudd naan maa mën a war la lu itam du mbir mi li gën daal mooy boo amee jiw ba ko xollee nga ji ko xam nga ab béykat kenn gënu ko gëm yàlla kenn gënu ko sukkandiku ci yàlla Omar ibn Alxataab wax na ko nee na al mutawakkilu ala allah man alqa xabbahu fi turaabi wa tawakkala ala rabbil arbaabi Omar ibn Alxataab radiyallahu anhu nee na ku sukkandiku ci yàlla ku wakkilu ci yàlla mooy béykat kii tu tubbi waqi suuf si tubbi ko jël sa jiwu sa dugub la sa gerte la sa ñebbe la sa basaab la sa kàññe la sa jiwu la daal lu waqi suul ko ca toog di dégloo kenn gënul laa wàcc ndax xam nga ne boo tubbee ba ji dugal yaa koy saxal waaye bu saxee dugal yaa koy maggal afaraytum ma taxrusun antum tazraunahu am nahnu zariun seet leen li ngeen di wéet ba ji ko ndax ngeen a ko saxal ba nekk mbay nekk gàncax wala yàlla ay saxal xam nga jël sa jiw yëpp sol ko ci suuf si te toog jëkkaar yàlla dëgg dëgg xam nga ne yàlla am na kon wakkilu bi ci moom kon kooku mooy al mutawakkilu ala allah man alqa habbahu fi turaabi wa tawakkala ala rabbil kon ñooñu ñëpp ñu leen di ñaanal liggéey am nawet boo xam ne bu barke la bu bari ndax la di ñaanal ñi bay wut itam yàlla may leen am xëy lu ñu jàpp ba bu mbay mi ñoree ñu mën ci jënd ndax mbir mi moom ñaar rekk ko bokk kii am na katt nag mën man bay na waaye ñor na kii bayu la na am na xaalis jënd na kay bay soxla na koy jënd waaye kii jënd soxla na koy bay lépp lu ñuy lekk rek ci mbay ñu di lekk ci suuf si rek la jóge xataa bàyyi ma yi ngay lekk seen yàpp yàpp waa ngi jógee ci ñax bi ñu lekk rek te ñax maa ngi jógee ci suuf si may ci taw ba mbay mi kon euh, wa ja'alnaa min al-maa'i kulli shay'in hayy lépp rek ci ndox lay dundee ci lay jógee di ndox mooy li nga xam ne su amee rek développement am kon béy leen liggéey leen jaay jiw yi toog ci taax yi bu leen ko yàq lépp lépp gu bari gi it nag matu ko ndax day tax bu ñu lay fayeeku ngay xul rek ko fi leboon li am daal mooy wuti leen. jiw ngeen bay ko te liggéey teyit di leen bëri lu ngeen di bay dugub ndax loolu la ñuy dundee gerte day rënd rek teyit léeg-léeg nga bay ko doo am ku ko jënd léeg-léeg nga bay ko jaay gi te li ngeen di bay ci aareen bu ngeen ko bayoon lu ko ëpp ci dugub rek moom du lëmb mukk ndax moom la ñu nekk ak ceeb bi sonn leen ci loolu ñu ngi ñaan yàlla mu barkeel seen yëngatu ya ak seen mbéy ma di barkeel seen mudd ya di barkeel seen nattukaay yi mbokk yi ñuy déglu yéen a ngi ànd nag ñoom ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam àndoon nañu ngeen ak moom be ñu leen di ñettali lan mooy sabab yi yàlla di ko ràññaane waxoon nañ ne yàlla Euh, da koo xamal ne lépp li nga war a def ci woote jëme ci yàlla def nga ko waaye waa suuf ñoom mel na ni euh, gëccal nañu la waaye rafete nañu la kon man danaa la woo ngan ca kaw asamaani juróom-ñaar nga xam ne waa suuf kenn xelam dajum ma dem fa ku koy jéem a sàkku sax loola da ngay mujj dellu gannaaw ba sori na siyaadatul xaasa ak kenn nga boo xam ne day delloo gannaaw gi ko yëpp kon nag yàlla ne ko woon naa ci kaw asmaani juróom-ñaar wante jaaral madina baytul maqdis te danaa la woon ay kawteef yoo xam ne da nga ci xamee ne man yàlla mën naa la dimbale te duma la bañ mukk ba gisee ma bàyyi la nii nga sonn damaa bëgg nit jël sabab yi cause yi na ko nit jël ba mu doy sama ndimbal door a ñëw soo bëggee alal jàppal ci cause yi sabab yi mooy kër kër yi liggéey te bañ ko yàq su boobaa nag man ma may la kon jëlal cause yi jëlal sabab yi ma door laa mën a jox kon yeneen bi yow jàpp ci asbaab yi sonn nga woote nga mbugal nañ la mbugal ñi nga àndal kon man yàlla maa ci gis kon woo naa la ngan ci kaw asamaan juróom-ñaar danaa la woon kéemaan yoo xam ne da ne mën naa la dimbale te duma la bàyyi mukk dama bëggoon nga sàmm ba tëral dama bëgg nga farlu ndax yow a nekk royuwaay kaayu xeet wi boo toogoon sonnoo dara lu nekk rek ñu jox la ko kon ñooy ci yow. ku amul loolu rek danañ yàlla man waaye boo sonnee lu nekk nga dégg ak moom kon boo nekkee royukaay ku roy ci yow dana xam ne war naa mën daje ak i jafe-jafe kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mel na ni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah, xam nañ ne moom mooy ki nga xam ne yàlla na ko teral na ko ci yónni ko waaye teral na ko ci waa ko ci kaw asamaan yi juróom-ñaar ndax dafa nar a nekk royukaay ñeel xeet wi loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, dal di eh, tukki tukki moo xam ne eh, mu kawe la loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla yóbbu ko ci kaw asamaan yi juróom-ñaar ñu teral ko waaye lu saxal ñeel ko ne mu xam ne yàlla am na wuutal lu mu koy wuutalal geccal gañ ko geccaloon ci suuf yàlla mën na ko wuutalal ak ta tagal ci kaw asamaan juróom-ñaar du ko xamal ne malakuut mu ñu nekk ci kaw yëpp ñu ngi koy jagleel ñu ngi koy réserver benn bienvenu boo xam ne mën na far coono bi nga xam ne amoon na ko ci àddina coono bi mu amoon ci suuf wallaahi subhaana loolu moo tax mu rañaane ko ci guddi mu jegee masjidul xaraam mi mu dem ba masjidul aqsa mu bati naqis bi nga xam ne barkeel nañ li ko wër ndax yàlla moo ko bëgg woon ci ay kaw teefam moo xam ne mu lañ la loolu jàng nañ ko ci alquran سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير muy jël eh, benn suratu al isra mbokk yi ñu dégg كي بيت المقدس dal di taxu nag war loo xam ne mu ngi tudd buraaq te Jibril ànd ak moom bu taxoo Makka ba mu jógee jaar na Madinal Munawwara ñu ne ko wàccal mu wàcc ñu ne ko jullil mu julli foofu mu julli woon moo di ñeegal ba mooy raw doom bu tedd bi mu demati ba yàgg ñu ne ko wàccal mu julli ñu ne ko fii ci Maqdis la kon ci digënté bi ci turu sina yi yonent bi nee na romb naa Moussa ci qabru ma magi julli ay wax la yo xamné buñ ko mëna dégg ga mo ko bëgg bëggee analyse analyse boo xam ne bu scientifique la do ko mëna dégg yang koy déggé rek ni yalla mëna lu nek ndax musa li mu fekk ci qabru muy julli bam mu ba ci Aqsa muy Jérusalem fekkaat na ko fa li yëpp day wane ni yàlla mën na loolu kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee ba baytul maqdis dal nay taxaw jël na buraaq jibril ne ko yow ko file am na benn jaaru bu nekk ci daaj mu ne ko jaaru bii daal yonent bi mu ma sa ñëw ak li nga war yonent bu ma sa ñëw fii ak li nga war fii nga ko yeew mu buraaq dugg ci jàkk je fekk fa mboolem ba mu duggee Aqsa fekk na fa mboolem ambiyaa u yeek mursaloona yi na fa am nañu ne fa sax arwaaxul awliyaa wa saalixuun ba tax na ولا علماء السيرة مثل ينتي بريد وذا كان ينتي بي جالا موسى عنين أن يالا فضلتو عليا آه يالا لطنج دنال كيش من يالا لطنج دن محمد جن من يالا من تلو المحفوظ فكنا في كل انكلا وطور ما أكسو طور من بن لا إله إلا الله محمد رسول الله te loolu nga xam ne mooy la ñu bind ca drapeau ba ñu samp ca arash wala ca sujaratul muntaha in saxata biir mu ne yàlla lu tax defoo ma naan mu ne loolu Muhammad la mu ne la gis naa ci sa téere ci sa xam-xam bi ka woo xam ne ku def benn ñu fay la fukk jox ma loolu mu ne ko xeetu xeetu Ahmad laa ko jàngal mu ne ko yàlla gis naa fi ñoo xam ne dañuy mokkal seen ab téere jagleel ma ko waaye ndax tawraat ñëpp di ko mokkal mu ne déedéet ko kooku xeetu ahmad mu ne yàlla gis naa fi ñoo xam ne bu defee bàkkaar dañ leen di muñal bu ñu waxee ñu far ko def na ko mu ne kooku xeetu ahmad yi mu ne yàlla gis naa fa xeet woo xam ne fu leen neex julli te ñun fokk ñu dem ci jàkki jàkki yawut ja wala jàkki nasaraani julli fa wala dañ nangu julli te ñu gis naa xeet woo xam ne suuf si yëpp fu leen neex rek ñu julli fa yàlla may na loolu mu ne kooku xeetu ahmad la ba mbir ma bare noonu la Moussa doon xulóog boromam xanaa Aïcha sama doom asmaaw te ñii ku yàq sa pexee sa mbir nekk fi waxal rek mu ne baba fu leen neex julli te ñun fokk ñu dem ci jàkki jàkki jàkki yawut ja wala jàkki julli fa wala duñ nangu julli te ñu gis naa xeet woo xam ni suuf si yëpp fu leen neex rek ñu julli fa yàlla may ñu loolu mu ne kooku xeetu Ahmad la ba mbir ma bare nan la Moussa doon xulóog boromam ko fadalta wa alayya fadalta wa alayya ba yàgg Moussa ne ko tee yàlla li nga ma joxoon ci yonent nga jël ko te far boole ma ci xeetu Ahmed yàlla ne Moussa fa xuz ma aataytuka wa kun min ash-shakirin fa xuz ma aataytuka wa kun min ash-shakirin jëlal li ma la jox tee nga sant yàlla kon lii ci ci xew-xew yi la ci kaw te yu mag yi la yu bari la ci diggante bi gis na fi ñoo xam ne dañuy bàyyi yàpp wu ñu togg ba mu ñor ñuy lekk yàpp wu xëbb xasaw wu ñoragut mu ne ñii ñii la Jibril ne ko ñii de mooy ñi nga xam ne dañoo am ay jigéen yu leen lew dagan leen ñu ci ñi dagan mu ne la gis na fi koo xam ne su ne bëreet rek biir bi da koy lëlle muy daan yataxabbatuhu shaytaanu min al-mas mu ne ma Jibril kii kan la ah ma kii kii kii de mooy ki nga xam ne riba rek ngeen lekk yawmal qiyaam buur bi da koy lëng bu jógee ñu baañ mu ne ma gis yëkk woo xam ne mu ngi génnee ci yenn xeer wu ndaw bëgg caa dellu nañ te mënu ca dellu mu ne lii lan la Jibril mu ne lii day benn waay la dafa waxoon ab musiba baat bu rëy la waxoon te la mu waxoon baaxut mu bëgg rëccu ko nag waaye fekk lii olof di wax rek ndax tuuru na an ba xamis bëgg rëccu ne ko waaye wax na ko ba pare ñëpp xas nañ ko dindi nga la waaye a bon xam nga wax aw njaaxum wax lu dugg noonu wax lu ñaan cëm ah nga rëccu ko lu bon la. boo ci bëggee dellu ginnaaw doo ci mën a dellu ginnaaw léegi nag la gën a bon léegi gis nga boo waxee wax ëllëg nga ne du man gaa yi dañuy jël wenn der wu tuuti ndeke denc nañ ko wala rek ñu jël wenn xandeer wu tuuti rek gis ko bu ndaw ndeke denc nañ ko ca nga wàññi ko rek ñu tegaat ko ne yaa waxoon ñu rek sa baat dañ ci la su ko defee nag bu fekkee muy njaaxum kii naan du man ak ñu ko waxee nag ñu mën yaa ko wax de. te yalla waxoon nako bu yag moo xeru yi yëpp yi ci la genn bëgg ni a delu xejatu ci waxon nga ko bëgg ko reccu waccu won nga ko bëgg ko wanaat bu fetti ndax legi moom rajo dañ koy jël mañu tu yi dal di ko enregistrer gaay duul ko ci disque yi su ko defé internet bi jël ko su ko weddee rek ni tegaat mu dig kon legi la gën a doy waar donc toujours toujours nas na bon waaye léegi la gën a bon may wax lu bon mu ne kooku de mooy kooku waxoon ne ko rëccu ne ko du ci dara mooy yëkk yu génn ci xëri bëgg ci dellu ci xëjantu ci ñu dem ba yàgg am ku ko woo ne ko ey Muhammad ñu dem rek bu waat ko ñaari yoon woyuwul ñu dem rek bañ woowee mu ne Jibril kenn wata sànq kan la ma ne Iblis la seytaane la soo ko woyoon sa xeet yëpp mu ngi ñuy topp mu ne waaye Ah, jox nañ ko ci tukki moomu ñaari ndab bi sàngara ci nekk bi soow ci nekk mu daal di jël soow mën naan ko bàyyi fa sàngara sa jibril ne jubal nga asabta waaxatal fitrata soo naanoon sàngara si sa xeet yi yëpp dañuy dal di yàpp waaye naan ngam soow mooy tànn nga la gën jub dana feesal biir Ah, ay denkaleen danañ ko nekkantalu waaye dana mandil ki naan ki waaye du ñàkkam xelam dana doyalloo ki naan ki feesal dingam saril ko ko ndox waye ko lekk te du ñàkkam xelam loola day nga tan lek nga ci nan nga ci te doo ñàkk sam xal ye nak bu sori lekk bu sori nan ci da ci ñàkk sam xal kon loolu mooy fitra sutura mooy lan mooy nature nature mooy lan mooy melokaan bi yàlla bind lépp lu am nga xam ne yàlla ko ñu bindee loxol mbindeef laalu ko xam nga ciment mën nga ne ci suuf si la jógee waaye loxol mbindeef laal na ko ndax dañ ko lakk xam nga su mën nga ne ci xeeri la jógee waaye loxol mbindeef laal na ko ndax dañ ko lakk waaye lu mel ni mar bi noonu nga ko fekkee ci bi yett rek nga def ñëw teg loo xam ne def naan ko loolu moo di fitra nit ku nekk ci fitra boobu la judd yonent bi wax na ko fitratullahi alladi fatara naasa alayha yàlla nature bi ñu bindee ñëpp moo di njub rek am njub rek yi nga gone gu ndaw kooku xam ne ba boo fi defoon dara it nga seet ku ne gu ndaw rek am ku ñëw di la seet ñëw ne wala yaay kenn la si nga ko damay nelaw su gune gi demee def naan nee day nelaw wala nee na fi yaa ko wax moom moom moom ma ngi ca fitratillahi lu fatara naas alayha xamagu fan li ko wax rek lañ wax kon fitra ngi ci soow nga sàngara su jóge woon ci garab ga ñu def ci alcool fermenté ko nga xam ne jóg na ci sutura ba kii moom ba mu jógee ci bëtt ba sutura boobu rek la lenn raxaatu ci mbokk yi ñuy déglu kon ci kanam tuuti ñu ñëw pour jottali waxtaan yi incha allah alhamdulillahi xaqa xamdihi والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله خيرة إنسه وجنه عليه وعلى آله أجمعين واقعي دلتي دلورة د لوري د فضلې فن کتر د ځان کډ د باکو چې کارونه دی یم البطل العظيم محمد بن عبد الله نقدم جار جاري شامبيون بنك بي جنبار جريجي محمد بن عبد الله نقدم بندر يبقى اي دروس بندر يب اي لسانا نيال جريجي dundal yëpp ay jàngale la yoo xam ne politique nga ci économique nga ci social nga ci xataa politique monétaire sax mu ngi ci xataa plan mu ngi ci lu nekk daf koy planifié kon l'islam wax na ne projet de société la buñ ko xamoon bu fekkoon ne joxe nañ ko bëddam ñooy wootee droit de l'homme ca Nations Unies islam nga leen cee raw nyoyote demokrasi islam raunelen nyoyote socialisma islam raunelen نزنا شوقي رحمكم ننا الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوي القوم والغلوى وفكون دكنا قد هيوا تندر إذا أسكن يجب أن بندرين قمنا كيف بكو سوسيالس يولين تبيعي يولي سنجد nan bokk ñun ñëpp sonn bu coono yi di ñëwee ñu séddoo ko ku ci nekk ci sa capacité suñu toll lan koy yàlla ko indi kon lislaam yi nga diine la dund la projet de société la politique la sociale la économique la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii la ko yàlla waxee nii danaa la wan cëriñaan ñi ay kéem motax ni ba yalla ñaan ni ko ci guddu bob waye yemul ci lolé ba ñu joggé ba ci nit ni ci ah, jité yent yépp nak yalla da kay yegal jox ko lu ñaan naraaj naraaj sama mbokk sama xari ndaw ba ñu tuddu applo ñaplo bu la nga di dem ak xamna da nga kay xëy na bu ma ëpp lu rëy na ci maana waaye lu lii miiraaj la lu mel ni benn escalier la boo xam ne borom da ci yéeg gis nga misaal mi boo demee ci pays yu mag yi da nga ko gis da ci benn aéroport rek nga boo xam ne day dem da ngay yéeg rek moom mu ngay taxaw rek mu demal boppam lu mel naa ni mooy miiraaj escalier roulant la boo xam ne mooy yóbbu boppam. kon mu ngi mel ni yeewu nañ ko léegi mi'raaj mooy jël ci kàttanu yàlla yéegal yonent bi ba mu dem ca asmaani juróom-ñaar wala ma ut taarix dañuy wax ni xam nga lu gën a doy waar xam nga yonent bu nekk yonent yëpp Sayyidina Muhammad moo ci gën moo ci mujj te indiwaale na seen yonent tax na ba ku ci nekk biram dundam juróom-ñaari étape. yi nga xam ne yonent bi dund na ko ci dundam yëpp juróom-ñaari étape yi ne am na yonent bu mu nekkoon ci sa étape ak sa dund tax na yonent boobu am na fu mu la fekk ci rajo bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam lan mooy mbiram mu njëkk Quraysh dañuy daje pour bëgg ko rey yàlla musal ko loolu mooy loolu moo doon mbiram Isa loolu moo di mbiram Eh, yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa gàddaayoon jóge Makka dem Baytul Maqdis loolu mooy mbiram Adama ñu ko génne aljanna mu ñëw ci àjjana tax na ba njël bee ni mbiru yonent bi mooy gàddaay jóge eh, Makka dem Madina tax na ba yonent bi njëkk a fekk ci asamaan su jëkk si mooy Adama yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy mbiram ñaareelam mooy ñu fexeel ko bëgg koo rey mu rëcc leen yàlla musal ko loolu mbiru yenteel Isa dañ ko bëggoon rey salab ko yàlla musal ko njërey keneen yonent bi alayhi salaatu salaam mbiram ñetteelam dafa niroog mbiram yonent yàlla Yuusufa loola moo tax mu fekk Yuusufa ci asamaan si ñetteel lan mooy mbiram Yuusuf mooy ki ay bokkam yëpp bañoon ba bëgg koo rey wala ñu génnee ko ñu mujj ñun ñëpp topp ko ñu gën leen féeti leen kaw kon juróom-ñetteelam mooy fatu makka te fatu makka tax na Quraysh yëpp taxaw ci kanamam ba mu ngi naan leen maaza tazunnuuna annii faa'ilun bikum ñu ne axun karim xayran axun karimin wajnaatin karim mu ne idhabu wa antum tulaqa ولم يرم يوسف لا تسرب عليكم الجبل كون ما تمرن يتلن يوسف لم يكن سكجاس نان سنتل naka noonu mbiram ñooy ñeenteelam mooy mbiram yonteelu Idris kan mooy Idris ulama sira ulama taarix ñoom ñu ngi ànd ak man ci loolu yonteelu Idris njëkk bind njëkk jël teg ci kayit wala ci àllu bind Idris a ko njëkk fekk na ci asamaan si ñeenteel ndax yonent bi mbiram mooy def murasala di bindante ak ñooñu nga xam ne ñooy mulukul ardi buur bu ne mu bind moo tax it mbirum ñeenti la mooy loolu moo tax mu fekk fa Idris naka noonu asamaan si juróomeel fekk na fa yonti yàlla Haruna lan mooy Haruna Haruna mbiram mooy mbiram juróomeelu yonent bi Haruna moo doon nax boobu xaw mi ay nitam dañ ko bëggoon li ñuy bañ Moussa la woon waaye Haruna ñëpp ko bëggoon yonent bi dafa mujj moom it nekk nax boobu xaw mi yee loolay mbiram juróomeel ah, mbiram juróom-benneelam mooy mbiram yonent yàlla euh, Moussa lan moo di mbiram yonent yàlla Moussa moo di ne dafa daje ak Firawna ci xeex labal ko yonent bi mbiram juróom-benneelam kon booy mbiram Moussa daje naa Quraysh ci ay xarub ak i xare labal leen natt léegi mbiram juróom-ñaareelam dafa niroo ak mbiram yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wa salaam kan mo di yonte ibrahim ibrahim moy ki waxo ni ni inni bi ila rabbi sayadin ma ngi dem jëm ci yalla dina ma jubal moo tax yonente bi mbiram juróom-ñaareelam bi wax ni man de legi sama borom ni wo nee so ma soo bëggee dund lu ma soob dama aljanna su ma wi ñëw ko léegi te man na wul ci ko kon lolu mooy dem ci wan wante ibrahim moy ki nga xam yépp doomu ñi gëm yalla ñu dee mata buñ mu kàllaf ibrahima la yalla chargé teg ko mu leen di jàngal ba bésub dëkk da ngay dee sa doom ju deewoon juddu woon dee rek wa xama amoon na tur mu amutoon tur waaye daal matagul mu kàllaf amagul fukki at ak juróom-ñett nga dajeeg moom yëmal qiyam mu nekk aalim nekk xaafis nekk faqi bu mag di wër naan ana sama yaay ana sama baay ñëw leen ñu dem aljanna nga naan waaw sama doom ji kañ la jàngal Ibrahima lay chargé loolu kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam mbiram juróom-ñaareelam moo di mbiram Ibrahima alayhi salaatu wa salaam Ibrahima mooy waa jooju nga xam ne ah, mooy jàngal bu ñuy kon mbiram yonent bi mooy toog ah, di jàngal umma bi di leen xamal xadis di leen xamal dilen xamal hadith dilen xamal xamal xamal li nga xamne mo di hikam kon nonu la rombo ci asman yi juróom-ñaar ku ci nek ma fekk fa kan fa wara fek wala ma sira bukhari ni tili ne fu mu ñew jibril day fogg buntu bi ñu ne ko kan la mu man la jibril ko andal muhammad ah, ya yeli nañ ko ñu ne waaw yeli ya nañ ko mu ne na wa dikam baxna ñew bi ñu dugg asman su nek rek lolu ku fa fekk Jibril moo naan ko naan kii de sa baay Aadama la kii de sa mbokk yonent la Isa kii de sa mbokk Yusuf la kii sa mbokk Idrisa la kii sa mbokk la kii sa mbokk la Muusa la kii nag sa baay Ibrahima la ndax kooku maam la ñëpp nañ lañ waaye a fës Ibrahima mooy abul ambiya kon lii mën koo jàngee ci reñaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu àgg nag ba mu àggee ba yegg ci fuñ naan sidratul muntaha Buxaari nee na ab déem la déem la boo xam ne déem bu ci nekk mooy meññeetam déem déem mooy garab gi meññeet mi dinañ ko wax bu ne léegi làkku lébu lañ yore si déem la ñuy fekk siddéem nag ci wolof mooy déem yoo xam ne bariwut nga tubb tuuti siddéem tudd siddéem tubb ci si tasxiiru dara la nga tuutal ko si déem si ndugub si pepp si ñax si piis kon baatab si tasxiir la ci luxa ci la wolof dañ koy jàng ñu ne ñun day mën a nan ñun daal mën a nan xaw na nag seen abajag bi ngeen bëgg a jàngal nit ñi la wala waaye bu làkk ñoo ngeen mën nan kon ñu ngi leen ciy nag wala kulli xaal eh, jàng jàngal ñu suñu làkk lu baax la donte yéex na ba xam nga développement moom nit mënul développé ci làkk wu muy jàngati namp làkk yi nga namp ci ngay mën a développé scientifiquement ci ngay mën a wax li nga ci mën a wax mënoo ko wax ci fen eh, président Senghor gis naa bu yàgg mais nit ku nekk làkk wi namp moom la gën a mën mu ne tegtal bi mooy booy gént ci ngay gént soo ci ngay saaga déngoo bu xam-xam làkk yi nga namp sooy nelaw ci ngay gént waaye soo ci ngay saaga kon woowu mooy jaxasoog sa deret woowu ngay wax naturellement du am benn takalluf moom ngay wax naturellement doo ci am benn coono waaye gis nga tey intellectuel ñuy tudde le soi-disant intellectuel bu ñuy làkk français ci benn penc mel na ndaje xam nga ñoom ñëpp yemuñ ci niñ ko déggee am na koy làkk français yu rafet yu gaaw yu rëy yu xóot am na ku mënul yooya am na ku ca topp ku ko yées ak ku mel ni man nga xam ne xam baatu tubaab bi rek li muy tekki rek problème la pour su ko defee bi ndaje ci ndaje di waxtaan bi ñu jubbu ndax ci day indi ay gros mots yo xamni morom mi xamu morom ma ngi ni ngi xam baat bo wala ngay tekki kon dootul dégg nit li nga xamni moy mooy moy moom la ngay wax continuité li ngay wax dootu ko dégg ndax benn baat ne rek doy ko kon na yëmu ci ma ngi fàttali ab bu ko na ci ñu bari ak ñu tuddayante yi te ñu rek bu premier rëy ñu daje ci mel mbir ci ngoon ba digë gudd mu mo déglu kenn ci ñoom ni teen wax wolof teen wax wolof ndax ñun ñëpp yemuñ ci ñu déggee français am na ku dégg lool ku dégg lu yem ak ku dégg dara ku mel ni ñu def loolu man daal ni, fukki minute ak juróom rek ñu dégg da ca baaj yi la gaa yi daawut dégg ya lakk yi nga namp boo dara nii dara dara dara dara ba mu toll nii yooyu ñu namp kon dañu jàng suñu lakk amal lu baax la mooy indi développement indi juif yi def nañ ko seen làkk yu ñu nangu ci li ñu développé seen réew arab yi noonu tubaab yi français yi noonu te ñu ci ne am na ñuy làkk comme bu fekkee ñun suñu làkk dafa tardé woon ba daawuñu ko bind ndax am demoon nañ ba di ko bind ba mu développé dañ ñoo delloo gannaaw ndax dañ daan bind làkk wolof ci caractère arab ci liifantub arab boo ne booy bind mane nga bind miin a noon maas ko loolu di liñ tuddee gëm kaas kaaf buñ ko gëmee muy nga wala ba jiim buñ ko gëm-gëmee muy ca wala ci ak ñu yooyu amoon nañ ko ba développé ci bi ba léegi ñu ngi ciy bind ay laata ba léegi ñu ngi ciy bindante su fekkoon ne dañu bëggee jàng wolof booba lañ jëloon ndax booba amoon na asas kon fekkoon nañu dem waaye ñu sakkaayu nit ñàkk ci xaalis ñu jël see nan la mooy ci boo àndee ii mooy ci boo àndee oo nangam nangam delloo ñu gannaaw ñu tàmbaliwaat lii rek ñun waaye demoon nañ romboon nañ ko bu yàgg xataa ci jamono yi ngalam bi ab dërëm feeñ boo xam ne wala fa lañ ci bindee njëriñ bi yë dañ ne dërëm ko indi fii ñu jox la xaymaam dërëmam nguur gi loolu amoon na fi développé woon na xanaa colonialiste yi ñu ci dóor ba delloo ñu gannaaw waaye nag loolu seet la ñu tuddee néocolonialisme mooy damay colonialisme ñu fi bàyyi ñooy ñoo gën a garaaw loolu moo tax pour ñu xam suñu làkk ba mën dara gën a jafe lool ndax jàmbur yi jox nañu seen làkk yi nampal ñu ko waaye ñetti téeméeri dafa dul caaxaan ñetti téeméeri at colonisé kaw nit bu caaxaan tubaab yi ba ñu ñëwee ba ñu ñëwee ne dañuy ñuy ko dañoo colonisé diine la ñu ëpp wàññi jëleen diine ju bokkut ak lislaam dañ indiwaale fekkoon nañ fi sax ñu ne lislaam waaye tubaab yi li ñu waxoon dañ ne woon mënuñoo fexe ba du ngeen nekk ay musulman waaye danañu fexe ba ngeen nekk ay moo musulman jullit boo xam ne tubaab lay wax jullit boo xam ne xamut diineem jullit boo xam ne civilisation islamique intéressé ko yitteelu ko waaye jullit boo xam ne civilisation occidentale rek ko yitteel lépp lu jógewut ci ci tubaab yi civilisé wut xayul jëmul kanam baaxut fexe daal bañ nekk ay maillot musulman su ko defee ñu daal di complexe suñu bopp yëg ak wàññeeku yëg ne saw làkk dafa wàññeeku sa couleur dafa wàññeeku sa kawar dafa wàññeeku yëg wàññeeku googu moo indi sax suñ jigéen yi xeesal ndax complexe la danaa xeeb ak ñuul yaakaar ne ku ñuul mënul jëm kanam mënul baax mënul nangam ak ki nangam kon xaaral ma diw yi la xeesal li ñuy diw ñun rek tax ñu wut ko. ñun ñi gëmul suñu bopp waaye pour gëm sa bopp nag foog nga gëm sa couleur waaye foog nga gëm sa kawar ak sa bakkan bu tëj loo xeesal xeesal daa fi bàyyi sa kawar bu gàtt ak sa bakkan bu tëj kon jaratu ko nit ki dafay gëm boppam yonent bi sax alayhi salaatu wasalaam mën nga jàngee ci moom bañ ko yónnee su gëmuloon leen kenn du ko gëm dafa gëm boppam keneen doo ko gëm aamana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi kon loolu mbokk yi mën nga ko jàngee ci suratu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala kulli xaal nii la rañaanee ni lay yëgee ba dem sidratul muntaha mu di déem boo xam ne foofu lañ jële woon mu ngi toll ni doomu ci nekk mu ngi toll ni ak gutt gutt dëkk boobu ñu naan xijar gutt ndaa yi jaan tabax daan déem bu ne noonu lay loolu Buxaari maa ko waxee nii mbokk yi ñu déglu sidratul muntaha googee nga xam moo nekk ci jannatul ma'wa fa la Jibril yéen ñu ne ko nan ngay mu ne ko fii la mën a bépp dogal bépp mbir mu jógee malawul ala ne yàlla ca kaw nekk bi waaye noonu rek lañ koy mën a waxee dogal ba. سدرة المنتهى لي جاري واتي سي سوف بيب مير مي جيف جو باخ جي ييك خمغا جيف جو باخ يالا داكاي ييغال جو بن واتي كو سي سجين لالو ما تاع يوم القيامه بي يالا يباسي ا باسكو لي يالا تي يوم القيامه بوك لي بي لي با باسكو لي يوم القيامه لي لنجا جنا جيس قولاي جيم والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه su ko defee mu yéegal ko jëmee ko fan sigal ca mun taay fi mu nekk foofu la Jibril yem yonent bi ne ko kaw teew yaa tilee ànd ndoor ànd ak ñi dafa muy ragalee nga ne mënatuma dem mu ne géej naa ni suma romboo maqaama bii dana lekk ci leeru yàlla yi ni kawar di lakkee ci bu jege safara noonu fa la yem foofu yonent bi dem nag ba yegg fa na ba yegg foo xam ne yegg nekku fa dem ba yegg foo xam amul yegg yegg foo xam aji yegg yegg yegg amu fa fu ñuy yegg itam nekk fa wasala ila xaysu la waasila wala mawsuula sallallahu alayhi wa mu dal di jaxasoo ak boromam ka xtulaatee raaxibil ma aw ñal la woo sotti ndox wala soow sotti ndox noonu la jaxasoo ak borom bu ne mo dem ci borom borom mo ñëw ba jexal ko mu jex tak lolu mo def sanaw bu yent bi sanaw ci li nga xamne ma di isra wal mi'raj waye nak su ngeen bëgge xam lan la jëlé fofu ne ni ngeen ñi déglu rek ëllëg ci waxtu yi inshallah da ngeen xam lan la yent bi jëlee ca rañaan na ba boobu mbokk yi lu déglu jëg yu rajo Wal Fajri FM 90 ñi leen di gërëm ci top ñi ñi top ci rajo Wal Fajri di gërëm Oustaz Assane Diouf di leen gërëm ci déglu bi yéen yàlla def ci ñu dégg topp def ko ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.